Onze billahi mina seetaan rajim bismillahir rahmanir rahim amis et auditeurs et auditrices de retour sur ce plateau comme chaque mercredi bu heure bi joté 16h12 sur le studio Elage Omar Foutuital, votre émission ëttu ndaw comme chaque mercredi euh, sur la même fréquence 98.2 mokra Diagne tay mo nek ci seen waxukaay gi nag te fas tay tey ñu ne indil leen thème ama ama am solo dañ ci dellusiwaat boo xam te ni émission ëttu ndaw ñi wax né jamono la ak euh, société maanaam dañuy jamono ak actualité maanaam société ak actualité ci la ñuy dox euh, di wéy tey nag am na xew-xew waaye dinañ ci dellu siwaat euh, laata loolu nag tey nag Macoura Diagne seen xarit seen doom seen ni copain seen lépp tey moo nekk ci waxukaay gi nag tey nag fas yéene séddale bal bi nag def ko à la Barcelone ñu teg ko ci suuf di ko waxtaana nay nag ñu su ko defee nag laata loolu nag ñuy nuyu sunu PDG Thierno Hamidou Yorobaana ak sunu ki nga xam ni képp kuy ak sunu direct beneen directrice ah, bu bees bi fi nekk tey xam te ni moom bëgg naa à partir d'aujourd'hui sax mu jël lengey sax ndax ma ak moom maay adjoint euh, madame euh, mademoiselle Binta Sy euh, ma koy nuyu moom it ak sunu technicien technicienne Roxé Ndiaye Samba Sy Birane animateur bu góor bu jigéen ak journaliste yu góor yi jigéen yi nekk ci rajo bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne bienvenue dans votre émission ëttu ndaw ñi Abdoulaye Diop nuyu naa la fay naa la Makoro Diagne ma bàyyi la nga nuyoo ak auditeur yi fay naa la Makoro Diagne di nuyuwaat suñu mbokk auditeur auditrice yi nga xamante ni ñoo safoo sopp rajo bi nga xamante ni mooy la rajo des bonnes valeurs di Safina FM nga xam ne defar rek moo ko tax jóg nag ba tax na tey jii nag ñu ñëwaat am mbégte ak contentement ànd si nag dellusiwaat ci plateau bi di waxtaane lépp li nga xamante ni dafa soxal ndaw ñi seen nekkin seen jëfin ak seen i doxalin ñuy nuyu nag képp kuy soppee Safina FM di ko teg ci loxo El Hadj Malick di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ak képp ku nga xamante ni mës naa woote ci émission bi du fàtte benn yoon ñoom Pape ñoom Petit Sarr ñoom ñëpp ñi nga xamante ne mës nañoo woote ci ci biir émission ëttu ndaw ñi kon nag mercredi jotati na nag ñu ñëwaat ci biir euh, émission bi fas yéene waxtaanee ak euh, ndaw ñi xew-xew jamono parce que émission ëttu ndaw ñi teg looloo ko tax a jóg may fàttali rek Makuro laataa ma lay joxaat kii bi na nag ne atum 2018 képp ni nag ndaw nga dund nga benn expérience boo xamante ni ak euh, auditeurs yi ba Sénégal. Mhm. ñu la il suffit juste que tu composes le numéro 33 867 52 52 33 867 52 52 dinañ la invité dalal la fii wala rek nga ci 77 359 45 53 nga nga ñëw partager sa expérience bi nga xamante ni dund nga ko ak ñun ndax ëttu ndaw ñi defar rek moo ko tax a jóg niki rajo bi di Safina FM 98 point 2. kàddu yi tuut na rafet na comme ni nga ko xamee Abdoulaye Diop tey nag ñu amaat beneen gan goo xamante ni nii nag dina jël micro bi nag di wax ndax émission bi li tax ñu may naan émission ëttu ndaw ñi société la ak actualité actualité oblige nag ci la ñuy dox waaye nag comme ni ma leen ko faralee di wax chaque jour rek ci actualité actualité bi tey nag dinaa si ñëw. mais surprise laa koy defal damay bàyyi sama invité yi ñu nuyoo ba pare tey nag ma am un teg beneen invité boo xam te ci kër gi la bokk journaliste la ab taskatu xibaar la ci kër gi moo tax it mu koy dalal moom it muy madame Thiam Massaly man moom dama koo nangu si madame monsieur Thiam dama koo nangu ci monsieur Thiam pour wane ne tey man maa gën a aay monsieur Thiam quoi <laughs> ci côté liggéey ay ca madame Thiam nuyoo. asalaamaaleykum Makoura Diagne di la nuyu di nuyu Babacar. di naan ñu commencé émission bi si jàmm ak salaam. te teew rek ah ñu mën a saat sunu beneen euh, invité boo xamante ni nag yegg seegul euh, muy Ndeye Anta moom it xam naa dina ñëw si kanama xam naa dafa xaw a ragal wala muy am lu muy hésité waaye di leen wax ne rek euh, tey nag comme ni ma koy waxee chaque jour tey le mercredi 14 février 2018 mën nañ ci génnee at bi mais saa ñu nekk 14 février rek xel yëpp am ci lu muy dem. Mm-hmm. man dama naan Valentine la ak Valentin. ñëpp xam nañ fi ma jëm. muy Saint-Valentin. tey actualité bi ñëpp koo gis rouge noir. wala rouge blanc man moom tey damaa génn feneen orange rose rose laa génn parce que damay man damaa bëgg rose sama xol tey nag thème bi ñuy waxtaanee mooy Saint-Valentin la ñuy waxtaanee lan mooy Saint-Valentin daañu ci dellu soir pourquoi ñuy fêter Saint-Valentin contexte historique bi ñan ñoo war a fêter Saint-Valentin est-ce que est-ce que war ñun war nañ koo fêter am déet lan mooy Saint-Valentin dañuy wax naa ko dinañ ci dellu soir mais tey problème bi mooy actuellement fête bi tey fi mu egg ci Sénégal foo dem ñi ngay jaay fleur est-ce que Sénégal ñun suñu aada ak suñu cosaan méngoo na ak ñuy feetoo Saint-Valentin est-ce que yoon la ñun ñuy euh, feete Saint-Valentin est-ce que Saint-Valentin feetu mbëggeel dong la ci ñaan yi nga xam ni góor ak jigéen la ñoo xam te ni ñoom ñoo war a bëggante ñan ñoo war a bëggante en général góor ak nit mën na bëggante yaayam nit mën na bëggante papaam nit mën na bëggante magam wala rakkam maanaam ay frères nit mën na bëggante xaritam comme ñun ñuy liggéeyee fii ñun confrères consœurs yi nit mën na bëggante ak ak ak ki nga xam te moom la moom la yàlla booleel jëkkër ak jabar mais tey est-ce que tey Saint-Valentin yooyu ko tax a jug laaj baa ngi noonu laaj bi samp na bunt bi ñu ubbi ko 88 628 10 95 88 628 10 95 ku ci am xalaat ci expérience bi mën nga jaar ci buntu boobu nga dugg woote mais Abdoulaye Diop su ma nee fête Saint-Valentin Sénégal di ko feete lan ngay wax. jërëjëf euh, Makora Dia Aïda boo euh, roqee boo mënee wàññi son bi tuuti voilà c'est jërëjëf euh, Makora Diagne di amaan mbégte contentement di dellu di nuyuwaat ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy teelu di nuyu sama naataango suñu reporter gi ci kër gi di Mariama Sadio Masali madame Thiam di am content mbégte contentement di ko dalal bokk ak moom plateau bi tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo di Saint-Valentin bu ñu ko waxee nag Makora yaakaar naa mag ñi sax euh, feeñ nañ ci mais ndaw ñi tamit euh, feeñ nañ ci man dafa am leen lu ma ci lu ma ci xaw a yitteel tuuti ci Saint-Valentin gi bu ñuy feetu mbëggeel <laughs> li nga xamante ni mën ko euh, genre euh, aspect aspect kom comme ci wàllum kom ko koppar yi nga xamante ni ndaw yee ko ci des ko ci def ci ay relation man ne ay relation éphémère la hmm. relation du du du du ci parce que bu ñu dañuy génn dañuy commencé novembre janvier décembre février euh, xale bu xale bu góor bi nga gis ni dafa jël ay ay cent et quelques mille wala lu si topp yàq ko ci kii bi après benn mois après deux mois après relation boobu daal di jeex mu mel ni tey jii man euh, Saint-Valentin dañ ko war a dafa war a nekk benn benn occasion boo xamante ni jeunes yi ndaw ñi dañu war a revoir seen seen façon de de de de vivre leur relation de vivre leur amour parce que nekk na loo xamante ni tey jii nii ah euh, amour c'est quelque chose boo xamante ni dafa dafa dafa dafa mystérieux comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. nekkul loo xamante ni c'est pour c'est pour un jour c'est pour. Euh, loolu donte sax jour bi c'est spécial parce que 365 euh, la année bi def donc bu ñu tànnee un jour spécial pour rek ku nekk mën a firndeel moroomam ni bëgg na ko et tout hmm. yooyu yëpp am na am na solo mais je me dis que des fois dañuy gis ñoo xamante ni il exagère un peu ci ci célébration Saint-Valentin non seulement dinañ ci yàq xaalis boo xamante ni euh, ci at bi yëpp dañ koo dajale woon liggéey ko yàq ko ci beneen mooy am na ñoo xamante ni dinañ dem ba def loo xamante ni neexul yàlla suñu borom neexul yonent bi neexul seeni waajur te duñu ko yëg tu vois donc dafa nek ay aspect yo xamanteni war nañ ko mën a mën waxtane mën a ci ci biir euh, suñu suñu émission ëttu ëttu ndaw ñi war nañ ko ci mën mais mais côté bobu daf ma daf ma ñor côté côté relation la façon dont nga ni ndaw yi fi ñing ko jëlé ñing ko jëlé amour ñing ko jëlé relation tey jii boo statut Facebook yi fune ku nekk nga envoyé message je t'aime bëgg na la dama la nopp yaa ma patati patata après une semaine lañ ci tek deux jours lañ ci tek après relation bobu ne jeex donc je me dis que donc ñun bu ñuy bu ñuy ñuy dund relation dafa war a nekk loo xamante ni c'est quelque chose de sérieux relation dafa war a nekk lu sérieuse loo xamante ni dina la amal njëriñ mais mënumaa jël mënumaa jël cinquante mille xëpp ko ci Mariam Sadio Massaly après mois de mars relation ba jeex ci loo xamante ni lu ñaax fayda la loolu gaspillage mënul mënul mënul mënul weesu loolu parce que euh, looloo tax nag ma ne Saint-Valentin gars nañ ci def nànk xam nga Saint-Valentin là waaw après chaque jour chaque jour lañuy lañuy dund Saint-Valentin man non la ko non la ci gëna gissé Saint-Valentin fi ci Sénégal. man limay wax euh, chaque jour rek chaque fois man leen ku ci moytul 5910 après rek ya li ci top ya mu gëna xam té la 14 février ku ko moytuwul wala ku ko jël yanu ko am foko duggal ñu ngi avril. février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre ñu ngénte xam man da man da parfois parfois moo abi sow ne ma damaa rëy wax aloy mais xam naa ne tey dañoo am ay supporter supporter podium bi am na supporter xam naa après mhm. laaj dañ leen di bàyyi ñuy dugg benn benn ñu ñëw mhm. comme ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bëgg waaye liy duuf ci nag li du xacc ci li mhm. ñoom ñëpp dinañ ñëw insha allah mais li may wax rek kat man en man kenn ki ma bëgg sama xol benn yoon laaka ka wax muy siisu marasu <laughs> moo tax affaire Saint-Valentin yan yanu ma si dugg ma ci soro ma ci roxe ñu toll mais en tout cas daal kool bi may man pour man mbëggeel chaque jour là mm. mais c'est normal ñu fêter Saint-Valentin parce que dafa am ay jour benn bés spécial mm-hmm. parce que fête des mères am fête des pères am na mm-hmm. fête fête fête journée mondiale journée yëpp pourquoi journée mondiale fête mm-hmm. dafay am bés boo xam te ni dañ koy tànn ci bés yi buñ ko on ci bés yi maanaam célébrer ko cela ne veut pas dire que yenn bés yi kenn du ko kenn du ko kenn du ko féete mais dafay am benn bés boo xam spécial même musulman am nañ journée boo xam journée beau spécial la pourquoi Korité pourquoi ajuma pourquoi extra extra mais c'est normal mais est-ce que Sénégal tay ñun ñu koy feetee dëkk tuba bi nga xam te fête gi fofu la cosaanoo ñom non lañ koy fété non boo seetee Makore ba euh, euh, Sénégal xam nga dañoo euh, dañ ko jéggaani nekkul loo xamante ni suñu suñu kii la dañ ko jéggaani parce que boo xoolee si si si occidentaux yi ñoom comment il vit il célèbre ça parce que ñoom day fekk seen relation boobu hmm, nekk relation boo xamante relation bu dëggu la relation bu sincère la relation boo xamante ni ñoom bëgg nañ ci dara. mais fii Sénégal soo xoolee ni ñi ñuy taxawalee seeni relation et tout moo tax man je ne pas à que ñu gars di wax ay ay fête de l'amour Saint valentin et tout parce que man balaa maa fête Saint-Valentin balaa maa fête lii daf may wóor ni man su ma tëddee man mi ki nga xamante ni moom laa jëral trahiruma mhm. nekkut ak keneen sax yow gis partagé nga ko sax yaakaar naa suñu groupe bi mhm. ne gel bu fi ànd ak keneen bàyyi faram yàlla nañ la yëkkati ba ci kaw dóor la ci suuf parce que dan maa trahir loolu mu nekk loo xamante ni ñoom tubaab bi ñoom dañu xam qu'est-ce que c'est xam ce que c'est dañ koy dund dañ koy dund de façon naturelle et tout mais Sénégal triche gi daf fi bëri. Mhm. Euh, naxante bi bëri et tout moo tax jours yi nii tu vois dañuy dañ ci yàq xaalis boo xamante ne après du mujj fenn. du mujj ah, bokk moom célébration moom mënut a bokk. évidemment parce que boo gisee tubaab bi ñoom sax dafay am loo xam te ni euh, bu ñu génn koo xam te ni dañuy dañuy bokkoo moom gëm-gëm. Mhm. bokk ak moom vision mais ñun pratiquement bon xale wax 2000 ku 18 euh, ans. Mm-hmm. cela veut dire que passé nañ benn palier ku leen ci rek euh, ngay mm-hmm. heure bi jot euh, Mariama introduction hein, après ñu dugal suñu beneen invité bi après ñu dugal noddu ñëwaat Mariama. waaw ni bi Saint-Valentin. Mm-hmm. ñoo gis ni ñi koy feetee comme ñi ñu ko doon waxee léegi ni tubaab bi ak ñun ni ñu koy feetee du bokkul mënut a bokk parce que ñun dañuy jaawale mbëggeel ak nobel ndax nobel mooy comme ñi nga xam ne dañuy sëy nopp nañ suñu borom kër te mbëggeel dafa yaatu àdduna bi ñëpp dañoo bëggante dañuy jaaw Sénégal fii nag loolu la nit ñuy jaawale mhm. ba pare xaalis gi ñuy jël di ko yàq ci benn jour di Saint-Valentin ma damaa gis gis naa ni mhm. ñoon ci jël xaalis bi di ko yàq ba pare relation bi du aboutir amul fin investissement à perte que ñoom no nobante wuñu dañoo bëggante nii rek parce que ngay gis nit ki fan ko nga dem ba ci biir ci biir nga jël sa xaalis di ko dugal ci moom dem ba ci biir gis ni relation bi mënut dem ngeen bàyyante loolu pertement la balaa caab nga xool koo xam ne yow nopp nga ko balaa ngay investir si moom nga xam ne yow carrément ni kii man bëgg nopp naa ko nobel gi tax ni ëllëg mun na nekk sama soxna nga doog investir si moom def ci moom li wax mm-hmm. mais kon kantaan ngay jël xaalis di ko dugal ci góor wala ci jigéen ci affaire mbëggeel nii rek dox daje. Mhm. dëgg la mbëggeel fu ne lay sokkeekoo. mais nañu moytu yenn yi comme feet bi tey moom niñ ko Makoura Diagne waxee jëlal bi allo. asalaamaaleykum. allo. dafa dem ah, amul daw da rasu na aca eggaleel comme ni ko Makoura Diagne waxee rek nañu moytu lu bëri. Mhm. feet bi tey moom ku nekk xale jigéen ñi génération 2000 gii. Mhm. xale yi nekk nañ ñoo xam ne précoce nañ. te xale góor yi waaw mm. xale góor yi moom. macha allah xale yi ragaluñu dara. génération dix huitième siècle bi xaw ma vingt unième siècle bi moom ah. ah macha allah ñu ngi leen di bëgg a yéen mille neuf cent yi de moom <laughs> te bu ngeen moytul yéen mille neuf cent yi lamb gi may dégg moom yéen a nar lamb. Eh, ñu dugal suñu beneen invité bi xam na moom ah, mi ngi may xool di ma xeelu rek xam naa ne dafa am lu ma dégg si man rek ma eggale rek xam naa man. wax ji tey est-ce que laaluñu ko damay wax li wax après ma dee benn yoon rek. <laughs> ma bàyyi ko mu nuyoo. kanam maa ngi nuyu ñëpp suñ mbokk auditeurs yëpp di leen nuyu. Mhm. jeex na. jeex na kay fi laay yow tey. fête Saint bi sama fleur fleur dama ko fàtte suñu kër. Mhm, waxal yow kay ba nga ñëwee def sa rose blanc laa xam ne yaa ngi koy dund. ah non soo man nag du ko du yooyu nag man naa la wax. ay couleur yaa ko dund parce que yow sax yaa ay couleur ay dund non ok eh, voilà surtout moo ko dund nag moo koy dund nag. mais man xam nga bon affaire couleur yi. te damaa damaa xë damaa xëy war a sentir benn couleur rek man damay xëy sentir couleur rek ma dugal ko mais tey tàkko su ma nee tey Saint-Valentin ñëpp xam Saint-Valentin tey pourquoi ñu koy féete mais tey yow Saint-Valentin Sénégal tey ak hier ak aujourd'hui tey lan nga ciy wax. Euh, Makoura man fi mooy njëkk a commencé mooy avant Saint-Valentin mbëggeel laay wax te mbëggeel du question de feetu Saint-Valentin tey ak fii ëllëg wala Sénégal ak feneen pour man mbëggeel lépp benn la parce que mbëggeel la ñu wax kon mënuñu comparer mbëggeelu waa Europe ak mbëggeelu waa Sénégal ndax mbëggeel yépp benn la Saint-Valentin ñëpp dañu koy féetee la ko ñëpp di féetee parce que benn fête la ci 365 jours ngay tànn nga def ko benn feet man jàpp naa ne loolu du dara màggal ko comme yeneen jour yeneen feet yu ñuy màggal ndax Sénégal fii du Saint-Valentin kese la ñuy màggal kon tey jii nga gis ki nga bëgg yow firndee ko ni ka dama laa bëgg yëkkati leen def ko man jàpp naa ne loolu wàññiwul dara si yow ndax lu dul firndeel sa mbëggeel wàññiw ko te bu fekkee ne nag mbëggeelu caaxaan la da ngay jël leen jox ko ko boo paree di ko regretter nga bañ koo def mais est ce que tey ñun Sénégal ni ñu koy feetee tey ak Europe tubaab bi ni koy feetee benn la que ñun Sénégal boo gisee ñun lu ñu dugg dafay ëpp parfois xoolal feet bi koy yenoo tey ku solu rouge blanc ñu taakal ñu am lu ñu wax ci yow ne kii dafay ibaadu ibaadu tey pour nga bokk tey au diapason wala tey pour foo dugg ñu foo fëgg ñu ubbi la foog nga sol rouge blanc rouge blanc mais arrête fan mooy problème bi ah, a ko sol ngeen bàyyi ba bés man kenn maa kenn soxloo ma kenn xoolu ma waaye daal en naa man li ma la bëgg a laaj pourquoi tey Sénégal yéen ni nga ko yenoote engouement bi tey man foofu laay waxee pourquoi engouement bi par rapport ak ñi nga xam te ni foofu la fête bi cosaanoo ñoom ci ñoom la bàyyeekoo pourquoi ñoom ñun ñun ñu dem ba gën leen a soxla fête bi si ñoom te ñun moomuñu ko dëgg la moomuñu ko sax mais 31 décembre moo ngi nii exemple ñu tamit moomuñu ko te fête bu ñëw ak tempsam bu dee 31 la dañ koy fête dund ko ba mu ne kon Saint-Valentin benn bés bi donc buñ ko dundee tamit du yàq dara. mais foogoon yow dañ ci war a def ndànk. déedéet même pas def ndànk sax. man jàpp naa ne loo si mën a def di nga ko def parce que benn jour la si année bi boo mënee def lépp loo mën kii wan ki nga bëgg ne ko dama laa bëgg moo tax ma lay defar li mais jar na ko bu dee koo bëggul nag jaru ko si kaw nga bëgg ko. waaw gaa jar na ko mais. kon jigéen ñi léegi dañ koy def ci koo xam ne jaru ko. ah loolu mooy problème bi nag. kon su ma ko déggee kon moom dafay Saint-Valentin mi ngi féete. mooy féete kay ñëpp dañ koy féete. ko xaaral man naan ndox te taru sóoratul jërëjëf Makoro Diagne xam nga sa euh, ki moom sax li ko tax a dugg ci kii bi ci ci bi xam naa xam naa la ko tax a dugg ci kii bi defante la defante moo ko fi di mais ñu nekk ñu fi pour pour pour pour pour defante dëgg la sax xam nga mais sànq Mariama dafa xool am solo mu ne ñun on mélange euh, mbëggeel ak li nga xamante ni moo di nobel. Mm-hmm. loolu dafa am te dafa bëri ci ndaw ñi tey jii parce que man mënu man d'accord fekkee nit ki nob naa la bëgg naa la man mën naa laa yéene lu ne lu ne ci biir. mais xam nga lan moy problème bi moy c'est que day nek lo xamanteni genre genre genre intérêt lay doon. Mhm. xam nga li ma wax. Mhm. genre intérêt lay doon. Saint-Valentin bi dama lay defar ben affaire fo nga ñew sama kër. Mhm. ndaw ñi da nga def foog nga ñew sersima fo nga def bu baax ñew sersima bo ma. bëggee ma jox la sa cadeau kaay jël sa cadeau. tu vois ta ak yenen ak yenen yu ciy xew et tout donc mu nekk loo xamante ni dëgg la mbëggeel yëpp benn la d'accord je suis d'accord avec toi mbëggeel yëpp benn la parce que yaa la xol dong la defar te xol ci la mbëggeel di sax dëgg loolu dëgg donc ñoom ñoom ñoom mënuñoo comparer ak ñoom parce que ñoom ils sont naturels parce que ñoom ils sont sincères parce que ñoom duñu duñu fen parce que ñoom buñ bu ñu bëggul ak ànd ak yow dañ la koy wax carrément duñu ànd ak yow parce que dama laa topp sa ginnaaw di daw rek ba nga maar daan xaar ma jox ko chance am tubaab du noonu duñu réagiré noonu man de dund tubaab laay dund de du ñu réagiré noonu. Mhm. léegi nag maintenant ñun fekkee nag ñun da ngay mujjee accepter génn génn ak nit ki parce que simplement danga am benn pitié ci moom. kooku moom mi ngi investir ci xaalisam alors que investiment à perte la. Mhm. loolu laay wax loolu investiment à perte la parce que li nga ci wax sànq dañuy am ngëm-ngëm dañuy am bokk ngëm-ngëm dañuy bokk euh, objectif dañuy bokk euh, la nga xamante ni ñoo ko ñoo ko vision. Mhm. donc bu fekkee loolu amul relation boobu du mën a kii dafa mel heure nord bi dafa dafa jot rokkaya da ngay dugal nord bi rek ñu daal di ñëwaat si ñaareelu pàcc émission bi 88 la 628 10 95. Safina FM seen émi dans votre émission ëttu ndaw ñi comme chaque mercredi ginnaaw ba ñu noddee ba ñëw nag euh, gi nodd bi nag moo xam naa studio bi xaw naa xar xaw naa wàcce mais dafa bëri yoo xamante ni ne départ gaynde arrivé muus nañu def dañuy wax ni rek mais ñemewuñu am na ku toog nag waaye jékki-jékki dawaat ñu ngi woon na ci benn volet li ñu wax en diggante amour ak eh, aimé moy li ñu wax eh, nobel ak mbëggel lé lé lé li li madame Thiam wax légui mais lay fofu la bëgg ñu taxaw fa tuuti mais dafa melni tay tey askanu Sénégal wala tay ñi ci ëpp dañuy jaawale mbëggel ak nobel moy li tubaab naan amour ak aimé lan moy problème bi fofu euh, li li wax sax à chaque fois naturel la dañu dañu dañu naturel en plus choix de mënuñu ko. mënuñ choix parce que ni ñu jàppee ni ñu jàppoo ni ñu jàppee relation fii nii amoureuse moo tax damay doxaan gel bi défi ay défi lañ koy def ay ay ay ay ay par force bi dama ko war a am ay ay ay genre triomphe lañ koy def quoi dajale dajale ay ay ay ay petit ami xam nga noonu lañ koy noonu lañ koy jàppoo moo tax tey jii moo tax tey jii ñu si bëri defoon nañ ko fi tem lu tax euh, relation yu bëri di aboutir en mariage. Mm-hmm. defoon nañ ko fi loolu donc moo ko waral. parce que tey jii di nga gis ñoo xamante ni euh, euh, sa waa ji fi woote woon di ko di ko nuyu de passage waxoon na fi di def na cinq ans xaw ma sept ans. neuf ans neuf ans voilà takkagul donte sax mi ngi ci yoonu takk nee na xam nga des fois am na relation yoo xam noonu lay demee. parce que ñaar ñooñu peut-être am na am na comprendre ante nañ. Mhm. bëggante nañ et tout mais tey jii ma ko yow sa relation bi gën a yàgg yow munoo wax ñaata weer la. waxuma la sax at. man mosuma am relation sax ba muy yàgg. mënoo wax mënoo wax mënoo wax ñaata ñaata kii lay duré ñaata ñaata bu bu ma matee bu gandee bu bëree bëri at. Mhm. te ci ca ñuy romb deux ans wala trois ans day fekk ñoo xamante ne li ma la wax li ma la li ma la expliqué démb ma ne la tey jii rédaction bi am na ñoo xamante ne ñi ngi fi. Mhm. bëgg nañ journalisme peut-être ñoo ko bokkandoo passion boobu mën nañ ko bëgg. Mhm. mais tey jii soo amoon benn cofeel ci moom ñëw wax ko ko day bañ. bataille dañuy da lay xeeb jarul sax wax dañuy da lay xeeb parce que yéen a tolloo niveau. Mhm. tu vois ngay dem euh, au niveau des lycées. lycéens yi fa nekk collégiens yi kan au moins ñoom mhm. waa lycée la ñuy wër la mhm. bëgg génne waa lycée waa université ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ñoo nekk dans l' euh, euh, enseignement supérieur ñoom ña ngay wër ñi nga xamante ne ñoo nekk ca kaw ñapare ñapare la ñuy wër tu vois maintenant nag gis nga ñooñu bu ñu bu ñu bu ñu génneek ñooñu après du yàgg sinon mariage ba day teel a tas. Hmm. à moins que mu nekk mbëggeel boo xamante ni euh, kii na. ménage ba day teel a tas wala rek relation bu du yàgg. dañuy jaar seen kaw jàll. voilà loolu loolu loolu mooy loolu mooy problème c'est pas parce que nit ki da nga tolloog moom génération que waru leen mën a dund un amour waru leen mën a dund mbëggeel waru leen mën a sëy loolu tant que Sénégalais yi tant comprendre ñu loolu. ah Makura. Mhm. à chaque fois nii lay demee. Euh, defe naa reportage yi pare ne dañuy daal di dugal reportage bi nga xam te ne nday ante jotoon na ko def démb Samba si bu fekkee reportage yi pare rek ñu déglu ko ñëwaat. Africa fukki fan ñeent ci weeru février di ab bés bu ñuy màggal mbëggeel ñu duppee ko Saint-Valentin nekk ab occasion pour waay bëggante yi ngir wane seen mbëggeel jëm sax ci joxe ay cadeau li ko dalee ci fleur yére ak lépp loo xam ne nit mën na ci bëggal moroomam ñi ngi koy wut ba tax jaaykat bi ci gis boppam. Saint-Valentin bi njaayam fleur yi mi ngi dox xale jigéen yaa ngi ñëw def defar ba mu baax suba moom du yomb parfum fleur yi kër yi fer yi macha allah lépp a ngi dox ñuy jënd bu baax maa ngi ciy gis sama bopp. fekk ko ci boutique bu ñuy jaayee yére Astou Fall ay atam di toll ci ñaar fukk di xamle ni njaay mi mi ngi jar bu baax. ñu koy préparé bu baax client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi seen amoureuse yi ñu ngi koy préparé bu baax rouge noir dox bu baax muy fête bi daal moom lay laaj ak yeneen couleur ku bëgg rek rouge noir ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax. client bii di wuyoo ci turu aram di ñu xamal ni mi ngi waajal Saint Valentin bi bu baax. dama doon xool si ay yére Saint Valentin yi noonu xam nga Saint Valentin moom parfois nii guddi gi da nga génn dañ lay invité nga mun a génn moo tax ñuy ay yére yére yi ñu sol daal man gis fi bu rouge bu rafet après dama koy wutal chemise bu noir bu am classe def sañ se su ko fay mun ko jënd montre bu rafet Saint Valentin di ab fête te lu ëpp ci ndaw ñi di ko màggal di profito itam ci bés bi ngir mën jox cadeau ki ñu bëgg ci loolu jaaykatu fleur yeeg jaaykatu yére yi ñi ngi gis seen bu baax ba sañ ñun at mi yëpp ñuy wéy di célébrer lii di mbëggeel. at bi yëpp ñuy fële célébrer jour fête mbëggeel la loolu sax lay doon ndax tax at bi yëpp fête mbëggeel la waaye bésu tey bi nag daf cee raw 14 février 2018 fii ci studio El Hadj Omar Foutiyou Tall c'est dans votre émission ëttu ndaw ñi ñuy waxtaane li nga xam te ni moom moo di Saint-Valentin tako reportage bi déglu nga ko. non dama bëgg tey kay tey dama lay xool comme kay xam naa ne yaa ngi keneen di feet ak keneen moom garaawul kay loolu dama am baa ñàkk rek. <laughs> ginnaaw reportage bi. moo jaax. yaa ma trahir ma. déedéet looy xoolee ba ma lay trahir. Ah, est ce que jox nga ma cadeau sax moo tax. Ah, déggaloon waxoon reportage bi rek moo gën. waaw Makoro bi comme ni ma ko gisee déggee sax ñu naan dañuy jënd cadeau def lii pour man loolu lu war la te lu mën a nekk la. dem marché ba xool li nga bëgg loo xam ne nii boo ko jëndee ki nga nekkal dina ko neex nga jox ko ko mais loolu dara nekku si. dara nekku si te yàlla nag bu fekkee da nga koo am cadeau bu la neex ngay jënd danga naan lu mu riche riche riche dama koo jënd ngir rek am plaisir si moom mu kontaan nga kontaan relation bi gën a hmm. eh, man li ma bëgg sax est ñoom. bu ñu xam waa moom laa bëgg est ce bañ a ah, xam tey boo tey boo demoon tey di ma jënd est man tey xam nga lu ma neex est ce mais nit ki nga nekkal hmm. ngaa xam guwam comme laay ni nga waxee kaddu tâtonnement du doon loolu de yow ni ki ngay àndal war ngaa xam guwam kon yow ah, monsieur Thiam monsieur Thiam xam nga lu ko neex bien sûr tey boo ko doon jëndal loo koy jëndal. xanaa lu mu bëgg. waa <laughs> eh, yow daal boo nekkee moom yàgg ak moom lu mu bëgg ak lu mu bañ xam ko ko daf laa war a intéressé nga jëndal ko ko. war nga koo xam. am na sama benn xarit Adama laay ñaan moom kooku am na jëkkër dafa maa trahir ma ba tey daf maa topp mhm. Adama laay ñaan dama ba mais taa ko yow tey tey tey tey sa waa xaw ma sa waa ji xaw ma man xaw ma ku mu tuddoon tey man par exemple man soo ma doon jëndal xam nga man tey xamoo loo may jëndal

sa man tey xam naa ko xam naa ay magam xam naa seen koñ xam naa seen kër te xam sox ma dëkk le problème bu ñi dëkk seen waa koñ man xam naa leen seen cela veut dire que enquête bi ma def man ba am ba ko ba xam ko tey man su ma ko doon jëndal du ma tatone xam naa bu baax li ma koy jëndal mais pourquoi tey loolu moom mënul am si moom madame madame Thiam foofu foofu yaay tontu yow xam nga nit ñi yow góor ak jigéen du ñu benn yow am nga yow di nga am seetlu nekk ak ku jigéen ki di ko seetlu à chaque fois parfois ci li muy sol hmm. ngay xool ci li mu gën a bëgg hmm. couleur yi muy gën di sol ku jigéen ki nag xëy na moom parfois du ko sax seetlu mais man moom gaa bu may ànd ak yow damay xool sa couleur yow couleur bi ngay gindi sol man moom damay laaj ndax damaa sob dama lay laaj yow luy sa couleur loo bëgg parce que bëgguma xëy benn jour di jënd jënd ma di jënd loo xam ne neexu la ndax man lu may jënd dama su ma ko su ma ñëwee jox la ko bu ma sa kanam laay njëkk xool dinaa la laaj ndax neex na la neex na la bu ma toggee sax loolu laay laaj parce que nit ki ki ngay àndal war nga xam guwam lu mu bëgg ak lu mu bañ. war nga koo xam mais en fait duñ dul waxtaanee yooyu noonu. duñ ko te dañ ko war di waxtaanee nag rarement ngay gis ngay gis ngay ma bëre ngay gis ànd ak benn xale bu jigéen. ngeen di waxtaan mu nekk sujet boo xamante ni c'est c'est c'est intéressant c'est fructueux et mm. tout. leneen la ñuy waxtaanee loolu boo ko damay jàpp ne mooy relation yi nga xam ne amul communication. te amul benn sens ñëw waxu falaa falaa dem mais tant que yéen a ngi dund relation bu ne relation bu tegu si non lan lan nga bëgg a def falaa falaa fa kan dellu si falaa falaa mooy lan maanaam relation caaxaan yow yaa ma gën xam relation bi nga ah, dund kon man da nga bëgg a man relation caaxaan yow yaa koy dundee man moo tax tey ma koy wax en direct ñëpp di ko dégg est-ce que bëgg nga léegi doo d'accord léegi dinaa ñëw seen kër xam naa seen kër léegi te te yaayam te lu mu ci xam na ma xam naa ko léegi nag jeex na léegi dinaa ñëw seen kër léegi na ma seen waa kër xaar mais tey li ma bëgg xam te ak actuellement laay ay seen yenn termes yi ñuy defar parfois boo xamee jigéen ñi seen yenn termes yi ñuy wax dégg nañ ko ci reportage yi parfois moo leen di daaneel wala moo leen di dugal ci musiba yu bëri mooy ay tabax ba mu kawee defar ba mu baax tey tey Saint-Valentin bi ko wax ñu ne la tey dañuy tabax ba mu kawee defar ba mu baax wax naa ko léegi ci biir reportage bi ku ci tabax ba mu kawee defar ba mu baax la saanee waxoon rek boo yéegee kenn yëgut booy daanu it sa kasee novembre lañ jëm waaw waaw gis nga loolu tamit ay ay ay ay genre xeetu joge ñoom borom caam yeeg ñoom tànko xale yu ko si ñoom ñooy génne yooyu wax ay defar ba mu baax dañuy acc ba mu kaweeg et mais loo si gis rek xel xel xel lañ war a mën a demee fii suivant yaakaar naa benn waxoon nañ ko fi benn thème benn bés la rek boo xamante ni jarul warul jar yenn yi dëgg la lan moo gën a neex lan moo gën a neex tey xam naa su ma ko waxee dina dina dinañ ma bañ mais tey lan moo am tey ban ban événement sportif moo am match moo am diggante Real ak Paris Saint-Germain. Mhm. tu vois tey jii benn gel nga fi woo ne ko kaa ñu kaa ñu dem kaa ñu dem benn resto ñu seetaan match bi. ça existe. Mhm. am na resto yoo xam te dañuy teg euh, dañuy teg match bi en direct. restaurant yëpp ko am euh, benn verre ngeen ñëw ngeen toog ngeen seetaan match bi après ku nekk ñibbi maanaam Thiam Sol mooy Paris Saint-Germain monsieur Thiam Sol mooy kii. waaw xale bu mhm. jigéen nga koy wax tey jii mu koy nangu. du kenn du ko nangu parce que booy seetaan match da ngay toog sa kër nga concentré au moins des fois ku jigéen ki day obligé pour moom ku ji ku góor ki des fois mu que des fois boobu noonu loolu ça raffermit des liens dañoo koo xeeb ñun africain dañ hmm. yooyu affaire yu terre yooyu du xeeb de du xeeb de ñàkk xam la parce xamuñu loolu parce nit ki yow boo àndee nit ki génn da war a dem dund génn dund lu leen génnee changé tuuti waaw mais ay dem kanta dem di sar ay match non non du changement boo dee changement da ngay changé leneen booy changé si télé bi nga jàkkaarloog sa télé toog sa kër moo gën a nekk doo changement loolu noonu yéen bu ngeen yaakaar bu ngeen yaakaar seen bu ñu leen yóbbul resto bu gën a jënd leen ginaar ngeen lekk ba ne ah Euh, jox leen boisson ngeen naan ñu jugal si taxi jox montre bu rafet et tout dundoo leen dundoo leen Saint-Valentin bi wala yóbbuwuñ leen boîte de de mais loolu mooy réalité te loolu moo am ànd ak nit ki yóbbu ko resto toog lekk naan waxtaan intimité yàq ñaar loolu si ki nga bëgg nga ko defal loolu yàq du loolu tey suñ ko ko defaloon moom ne ay seetaani match du nangu parce que tey télé la te rajo nga toog nit ñi di wax dégg tey restaurant bi am nañ télé. rajo tey match bi tey bu ñu waxoon tey. restaurant bi pour seetaan match. dëgg la da ngay dem ñu taal télé bi nii mais du question da toog concentré wu seetaan match bi kon doo ci dem parce que doo ci d'accord moo mooy buntu jokkoo bi ngeen mën a dugg ñu waxtaana waa tribune bi nag tey ñu ngi leen di nuyu nag ku ci amee ku ci bëgg a dugg rek buntu baa nga ubbeeku na mais tey laay ñu dellu siwaat ci débat bi tey gis nga tey ñu ci bëri dañ naan affaire 3 et mois toi et moi mais tey ñi bëgg tois et moi yëpp ah, relation yi ci bëri li ciy tas looloo koy tas tey mi ngi bëgg mi ngi naan ay bëgg tey tey mais dafa am loo xam te nit tey li dara bu la taxee jug boo demee loolu ngay gis wala parfois li may sama gars yi man la nit li nga xool ci moom loolu ngay gis parfois nga gis tey ku ànd ak ab bandi wala ab ku garaaw ñu naan ci bandi bi ngay àndal ku tekkiwul dara li la ci nekk moom moo ko xam parce que la xoolul loolu mais tey problème mu jigéen ñi dafa naa jigéen ñi seen vrai problème tey loolu la tey Saint Valentin du ci génnee jigéen ñi parce que ñoom ñoo ko gën a yenu góor ñi ñoom ñoo ko

comme d'habitude kay comme trahir nga man moo xam naa ne moom man ak yow bañ ko doon feete moom neexoon na lool man la maa ngi mbaa waaw allez maa leen di nuyu daal di leen félicité di leen encouragé di leen bon di leen wax xale dégg nga am na solo trop parce que yéen ñett yéen ñi waxtaan affaire suñu balance di ko ko dara ko di wax bonne fête à tous merci beaucoup dégg-dégg bi dafa xaw a euh, tàggat tembe taxu suuf waaye li mu defe naa li mu wax leer na naññ ne mbëggeel euh, dañ ko war a féete à ku ci nekk da nga ko war a féete sa boor waaye bés bu nekk euh, mbëggeel la mais c'est normal benn bés spécial am ci ñu koy célébrer 88 628 10 95 88 628 10 95 taa ko yaa woon ci benn volet. man man loolu mu ñu koy wax tey di ko wax suba gannaaw suba du ma si mës a d'accord bu la restaurant dem restaurant taxee jóg bu la restaurant taxee jug restaurant moo la tax a jug nga dem toog waxtaan am intimité yow ak ki nga bëgg kenn bañ leen déranger bu leen paree ngeen jug dem ànd yéen a xam fu leen neex ngeen dem mais en tant que yow moo tax nga naan da nga jug dem restaurant pour inviter nit ki muy dem di seetaani match pour la invité ma sa kër ma seetaan match waaye ngay dem restaurant boo naree dem restaurant moom nga bàyyi ko. ak restaurant ñoo ci am doo ca la waxee match le mot match bu nee ñëw ci invitation bi bi doo Euh, kii démb démb maa ngi tooñ sama sama sama benn kii ma ne ko ma ne ko instant yi nii looy looy looy waajalee kii bi mu ne man taluma ko damay liggéeyi après marché bi laay seetaan ma ne ko jëndal popcorn bu bëri ngeen toog yéen ñaar seen digg laal ngeen toog ngeen seetaan seen marché da marché bi day neex intimité la ay souvenir la yoo xamante ni marquant te loolu ñu Makoura loolu suñu ndaw yi duñ ko dund bëgguñu ay souvenir man dama bëgg fu ma jaar am souvenir yoo xamante ni bu ma toogee dama koy fàttali ko damay toog fii des faat ndaw faatu ndaw di ma tooñ naa yow comme xale bu ndaw parce que je me rappelle des sama sama sama sama lycée comment je vivais dama loolu dama koy fàttali parce que ay moment la yoo xamante ni euh, dañ koy fàtte xam nga imagine toi tey ñu ne ñu ne 14 février

yaa ngi li ma la là c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de différent Lol, forcément donc il koy fàttaliku sa sa dig même bu le match bi neexul tu vas te dire oh boo c'est rare de il di nga fàttaliku ah suñu match ba parce que di nga fa rencontrer couple di nga fa rencontrer ak ñeneen mu environnement bi day changer mu quelque chose de nouveau dootu une routine dem toog ñëw toog commander pizza wala leneen lekk après waxtaan Euh, def def li ngeen def après dem ñibbi. surtout période bi nga xam te ni seddul sax bu ngeen àndee lonko bras dessous bras bras dessous bras dessous. créativité lañu amul. waaw mais c'est que ñoom kese la. Ah, mais xam nga dañoo bëgg affaire terre à terre ba pare bëgg loo xamante ni di dund lu tubaab bi di dund tey duñ leen ah, mais xam nga parfois euh, dund loo xamante ni tey euh, maanaam di tubaab yi di def la te ñoom mënuñu ko wala xamuñu ko. dañoo créatif rek. ima tubaab yàlla da koo jox xel jox ñu xel. mooy copie bi. te yàlla jox xel boo boo boo fekkee da ngay génn ak nit ki ni muy toogee di xalaat pour di la bëggal hmm. noonu nga war a xalaatee pour d' accord naa ni d' accord naa ni d' accord naa madame Thiam li nga wax nga ne euh, góor ñi tamit Saint-Valentin pour rien la mais ñun ñoo ci gën a sonn ñun ñoo ciy gën a sonn sérieux amul loolu la foog laaj taxaw que année bi 365 jours la mais 364 jours yëpp góor yi ñoo financé. restaurant bi ñuy wax tey sax. restaurant bi muy wax bi ñuy wax ni tey bu ñu demee góor ñee fay. mais c'est normal. waaw nag kon kay bu leen wax ne kon bés bi seen bés la sax non noonu lañ ko mën a waxee noonu lañ ko mën a waxee parce que yéen ñu leen di bëggal yëpp ñun ñoo koy def ha hmm. ah, yéen e-, kii bi yéen nu mu tuddati investissement bi yéen ci yéen la war a génnee hmm. ci yéen la war a génnee yéen yéen ay góor yéen a war yéen ay yéen a war a joxe ñun ñu defal leen li ngeen bëgg hmm. n'est-ce pas carotte bi moom gaa parfois ci mën na génne sax seen koy jëndee mi ngi noonu mais daal mooy na nga jox sa nit ki cadeau mu xam ne ni carrément kii am na yëg-yëg ci man mais xam nga cadeau bi balaa mooy gën a neex nga jëndal sa bopp. mais parfois yaa koy génnee sa bopp. yow jigéen jënd na euh, loo xam ne. Hmm. jëndal ko góor te euh, ku góor ki joxu ko ko. dëgg la xam nga xamul fu mu ko jëlee. mu nekk muy sëy mu bañ a sëy yëpp ci yem. Hmm. l'essentiel cadeau bi hmm. moo ci am solo danga jox nit ki cadeau mu xam ne carrément ki am na yëg-yëg ci man kii mu ngi may bàyyi xel. mais tey yéen cadeau cadeau bi ngeen di wax man dama bëgg a xam cadeau c'est quoi cadeau lan mooy cadeau get jënd jënd jote caaf la wala tey mère bi jaay su sa su cadeau kadoo kenn du ko xeeb yéene bi donc moo am ko wax lay ma pay leen bu rek too kay ci yoo <laughs> xam ne dañ koy jël def xam ne lu rëy lay nekk mhm. na bañ a yegg foofu kado mhm. mun na nekk sax lu simple lu ndaw kado la ah, l'essentiel daal mooy yëg-yëg bi moo am solo parce que xam nga lu tax parce que xam nga lu tax tey ji tey njooy bu ma jëloon benn montre offrir ko da koy xeeb man j'en suis sûr boo ko joxoon montre ma jox ay dàll da ngay daam daam parce que xam nga lu tax xamoo ki ngay àndal xamoo guwam yow boo koy jox kado war nga xam ne ni kii li ma koy jox nii dina ko neex mais boo ñëwee ma ne la relation yi moo tax ma ne la Saint-Valentin yi gars yi dañ koy fête à l'aveugle nii rek mariirandoo gi fête ko yéen marié yi d'accord yéen marié yi yéen a ngi amul ba neex di faire Saint-Valentin mais ñun ñi nga xamante ni ndaw ñi ñoo ñoo fi nekk di di di génn comme génn gi ñuy wax génn ñun dañ koy féete à l'aveuglette des fois na nga ay couple yo dinañ xam et les couleurs dinañ ko peut-être dina la avant ñu ñëw ci marié mhm. ci célibataire est-ce que tay parents amuñu ju euh, responsable parce que tay xalé bu bo ci aborder tay suma ko suba rek papa jours rek ma ne ma sama kër ma fi est-ce que tay parents tay d'une part nekkuñu fautif parce que ñoom d'une part ñoom ñooy accélérer affaire yi su ko mhm. defee du coup ñaar ñi duñu xaw a xaw a xaw a am xamante wala mhm. xamante bu wóor bu ci kii est-ce que tey problème bi nekkul foofu tey waaw xam nga parent moom wayjur moom dafa sori ci ci ci ci doomam xam nga mhm. donc ñoom ñoom seen rôle seen rôle mooy euh, sama doom fan la war a dugg c'est normal loolu li nga wax noonu dañ ko war a mën a def parce que temps yi njëkkee dañ ko doon def boo une fois deux fois mais Makura boobu day fekk ku góor ki ci boppam bëgg takk jabar Mm-hmm. fa lañ koy waxee. Mm-hmm. mais tey jii ñi fiy génn ñu bëri bëgg ñoo takk ki ñuy génnal. mu ñu waxante dëgg tamit nag waa ko sax. wa mi ngi noonu. dañoo waxante dëgg est ce que bu ñu ñëwee parents leen gis. parce que boo jëlee toor bi. waaw bëgguma man nga jël toor bi teg ko si parents yi. yi mën nañ toog bañ koo yëg. Mm-hmm. nit bi muy def muy jigéen muy góor dafa mhm. capable mhm. tay ji mën nga jël leena nga jël décision nga ni man kat Saint Valentin bi ñëw na mhm. sama copain bi dama koy jëndal lii wala sama copine bi dama koy jëndal mais yow sooy xalaat loolu bay def marché dox sa tànk dem di ko jëndi ñëw sa parent mën na ko bañ a yëg nga def li ngay def dem yóbbu ko ñëw toog mel ni du woon yow nag nga toj dëkk bi mooy li nga wax toj dëkk bi ba kenn du xam ñëw mm-hmm. kenn du xam kon tey boo ñëwee nga ne est-ce que parents yi duñu duñu foti fa loolu loolu du ma si d'accord ndax parents mën nañu xam comme tamit a gis koo xam te bëgg naa ko dëgg moom seen waa kër dan may xam moom keneen di fa ñëw parce que tey léegi bu ngeen doon xam par exemple bu ñu xamante woon fii tey mu yem ci rajo ah. ah. Ah, waa kër ga moom la te yow kii sa papa sa yaay wax yow foofu nga mm-hmm. ne woon village nga jëm village ngay sëy damay ñàkk non wax ji wax dañ mm-hmm. parfois say parents parfois du bi <laughs> ba mu ak euh, yep mais mm-hmm. parfois dafa am lo xam tay wax ko. Mm-hmm. yow di mais tes say parents même bu même liñ wax ne mariage forcé mais am nañ ou ci yow. wala am nañ cadeau ci yow. tay buñ la lo bëgg bëgg buñ fi la fi la. tay yow xalé bi lu lo sa parents say day en personne bu fekkante ni nit ku sincère la ku melni man qui présente googu ngay wax moo amatul parce que xam nga parce que génn sur WhatsApp génn c'est superficiel génn c'est c'est loo xamante ni nekkul parce que sànq wax naa ko su tant la hmm. la fille ne veut pas que tu viennes chez elle pour ñëw suñu kër parce que man sama papa nangam sangam. daa fiir waaw dafa fiir noonu ay kon ay la su yow gis ni mi war nga ko vas-y mais loolu noonu moo amul. loolu noonu moo ko moo amul ñu si bëri tey jii ñu ngi génnante di daje ci resto yi di daje feneen ak feneen wóor na yàlla am na ñoo xamuñu seen seen copine fu mu dëkk. maa la wax li bu la fa koy nangu buñ toogee boo toogee génn ak nit yow waxuma la ay mois ak ay at te mosoo xam fu mu la ne yaa ko nangu yow la neex daagul fan la fan la nangoo it moom moom la neexal mais bu ma ñëw wala xaw ma seen ma fa dem yow tamit nga toog mais comme ndey tey ku ci mel ni ku ci la wax ku ma la way titi rek ah, buñ la invité bul dem kese te muy dëgg loolu doo la no day xam ba pare ngay continuer di génn dañuy bañ nga découvrir sax la ci suuf parce que mënuñu topp wax ji dañ ko waxtaanee ndey Anta jëlal micro nga nuyoo <laughs> ñu dalal suñu beneen invité bi Ndeye Anta Gueye moom moo def ñuy fàtt ne moom moo def euh, reportage bi ñu jot a dégg léegi-léegi ci Saint-Valentin bi euh, Ndeye Anta Gueye am na ñu lay jot a laajte nag ah ñu ne nag euh, reportage bi macha allah ma bàyyi la nga nuyu gars yi. waaw asalaamaaleykum mbokki auditeurs yeeg auditrices Safina yëpp. ñu ngi mhm. leen di nuyu di leen bu baax. Mhm. di kontaan tamit ci. waxtaan bi rek mhm. dinaa ne foofu la fi ngeen joxoñ daal foofu la mais tàkk ko man yow laa àndal mhm. bul bàyyi dara mhm. <laughs> bu leen may dara tamit waxal ci Saint-Valentin bi lan la wax Saint-Valentin bi yow noo ko xamee tey yow bi nga wàccee tey dama lay laaj ci reportage bi nga wàccee tey def reportage ci jaaykat yi nga demoon jaaykat yi ñu wax ñun ñëpp dégg nañ ko mais en en personne yow en tant que yow ndeyante bi nga wàccee yow tey lan nga gis waaw li ma gis mooy Saint-Valentin bi jigéen ñi ñoo ko gën dund ko góor ñi parce que a dund ñoom ñooy gën a actif di jënd kado ñoom ñooy gën a actif di def <laughs> leneen ak leneen ngi wane seen mbëggeel ah mais góor ñi waneetuñ seen mbëggeel ah franchement waa ah ñi ma taseel ñëpp nag ñu bëri waa da ngay toog sax naa est que kii bëgg na a ndaxte man effort yi may def si moom moom gisuma benn côté fu mu ko defee loolu la baadu moo tax ñu bàyyi ma <laughs> non non attends dayaata mu ne mu ne mu ne jigéen ñi la gën a gis mais jigéen nga ay ay jigéen nga taseel mais ay góor góor yoo xamante ni weer bu ba weer bi janvier deewee ba léegi ñu ngi waaj. di dajale yow yaa ngi ni sa classe gi dañ ne euh, sa classe gi la wax. waaw duñ ko génnee tey finance gé jël lu dul jeex def ci. waaw ñoom ñi ngi xalaat euh, déjà côté finance bi. jigéen ñi nag jiitaluñ côté loolu dañuy wane ne seen mbëggeel moo leen yitteel ba tax na ñu ci defit tamit te ñàkk ñu ko. je suis pas d'accord. mais jigéen ak góor duñu benn. waaw góor jigéen lu mu mën a fësal. Hmm. góor mënu koo fësal. waaw xool ci amul amul paternel nu mu comme yow tey gi sa papa dina la bëgg hmm. xam ne yow mun dina bëgg mais du ko wane carrément mm-hmm. da nga naan sama papa xanaa bëgguma wala leneen te da ko te da koy nëbb te da laa bëgg mm-hmm. mooy comme noonu la rek yow di parfois di góor di nga nekk ak sa sa jabar wala sa gel ci kër mm-hmm. muy def ay affaires yoo xam ne da nga naan mu la parfois da ñàkk a fayda da nga naan ndax kii bëgg na ma te fekk bëgg na la mais yow jigéen yow ni nga ko mën a fasalee moom du ci fekk ku góor ki mm-hmm. moom ay dalay betti da def ay cadeau comme surprise moom bëggul daram fës mm-hmm. am na ñoo xam ne moom dañuy bëgg lépp lu ñuy def ñëpp di ko gis mm-hmm. mais am ñoo xam ne moom na ñi yoo xam te dañoo weex dunq ni sama parce que lu ñu def même buñ ko nëbbeet foog mu fees parce que man nii bëgg nañ teg nañ ma góos ay bien vrai que nekkuma góos dafay am mais aussi man li ma bëgg a xam euh, euh, d'une part tey pourquoi fête Saint-Valentin te xale yi jigéen ñi li day anta wax léegi jigéen ñi ñoo ko gën a yenu man problème bi alors yow tey fi fekkante ne da ngaa dem tey ba gis lu toll ne fête fête Saint-Valentin nga jël ko nga yenu ko tey nga yenu ko def jël lépp lu leen looloog loolu def ko ci ngir waa ji tey suba nga bëgg a taxaw ne est-ce bëgg na moom wala est-ce que bëgguma est-ce que tey yow en personne yow ku la ko jigéen ki yow yaay nax sa bopp wala. parce que tey fête bi yow bopp ma kura ku góor ki moo lay nax parce que yow da ngay def effort li jënd xaalis jënd ko def lépp. jox ko ku góor ki déjà ni muy réagir wala lim siy wax rek boo si amee ñaaw njort danga naan kii bëgguma parce que dama kaa jox kontaan ñu si mu changé kanam wala affaire yooyu benn côté tamit euh, góor ñi. man euh, non taxaw foofu cadeau moom bu neexee moom changé kanam lu ci am wax dëgg fa yàlla. déedéet parce que góor ñi taxaw ma wax la góor ñi des fois. lu tax lu si ëpp dañoo jënd kado dañ naa kii du ma ko jëndal kado parce que wóoluwuñu ko jigéen ki foofu yemul ci man doon ne ko am parce que dañ naa ko yemul si man deful li wax deful non mais loolu esprit boobu te moom jëndal la moom du xalaat loolu non mais esprit boobu yéen eh, amul confiance mais esprit jalousie mooy esprit jalousie laay esprit jalousie dafay installé am naa benn xarit boo xam te dama koy nuyu de passage bëggul ma wax turam mi daf may saraxu rek mais mm-hmm. moom nee na moom buy bëgg mm-hmm. duñ xool kenn bu ko neexee sax na nekk vingtième femme mais moom li ko war envers waa ji da koy def mm-hmm. li ci des yëpp li jëntuwu ko mais pourquoi pas jigéen ñi ñoom ñëpp mënuñoo dundee noonu parce que parce que ñoom pour ñoom ku góor ki bu leen defalu rek non parce que mi ngi koy defal keneen buggu leen mais pourquoi esprit boobu yéen ngeen yor ko yéen jigéen ñi pourtant loolu yéen yéen ñi di ko wax nag li ñu ko wax yéen yéen ko yor mais loolu dafa fekk yow nga séntu ci dara mais bu dee yow koo xam ne da nga koo bëgg hmm. te yàlla rek a tax yow bu la defarul sax yow doo doo ci xalaat loolu hmm. loolu kese la loolu yow loolu taako nga koy wax 88 628 lii bi ñu ko bi du forcé hmm. du forcé yow ku jig yow dangaa yéene rek def mais boo bu la bëggee rek te yàlla rek tax boo ko joxu kado nga ñàkk ko jox yëpp moom amu ci lu mu ciy xool déjà sax tey bés bi dëgg la daf moo gën a fees at mi yëpp mais même bu dul Saint-Valentin yow nga toog rek yàq nga bëgg nga toog benn jour rek surprise ñëw rek indil ko benn côté bu ndaw rek mm-hmm. dafa neex. Mm-hmm. loolu rek dafa neex mais yéen loolu du mës a si côté góor ñi jigéen ñi rek ñoo ko def nga wàcc sa xel nekk si dara wala nga gis dara mu rafet rek nga ni lii de yéen naa ko diw. xaar ma ci eh, parfois am na góor loolu de loolu moom je suis pas d'accord au contraire c'est tout à fait le contraire qui nena na nena na na ñi ñoom ñoo gëna actif ci marché bi parce que jigen la je la comprends mën naa mën naa jugement mën naa am leen ko ki lu question ne jigéen laa sax mais loolu mo am amul xamalu tax parce que ñun góor ñi ñun góor ñi à chaque fois ñun ñoy ñun ñoy gëna son dans les relations qu'on le dise qu'on le dise deug la ñun ñoy gëna son dans les relations parce que yeen yu bari da ngeen koy jël góor moko wara def góor moko wara def mom góor la wala mom mo top surtout surtout nag boo nga xamante man maa ñëw jël sama tànk ak sama kii woo la ñëw ne la man dama laa bëgg damaa bëgg ñu def nii damaa bëgg ñu sekkali boo bu ñëwee à chaque fois da nga naan moom moo ñëwoon moom moo ñëwoon dox si ma kon moom moo moom moo war a def li war. te xam nga lu ma neex jigéen bu la defaree bul jëlee defaree parce que moom moo la bëgg boobaa mais gis nga su fekkee yow ma ko de yow yaa dem bëgg ko lépp elle attend à ce que tout. Mhm. lépp day xaar ni yow la man amul problème man je mën naa jox ko mën naa defal surprise mën naa defal et tout. mais day fekk loo xamante ni man su ma la koy defal mu wóor na mi le minimum même su fekkee man awma confiance comme ni ngeen koy waxee parce que da ngaa ñàkk confiance si si si man et tout mais loolu yow yaa koy wane c'est à toi d'enlever ça yow yaay dindi yow yaay wan à ton à ton copain wala ki ngay génnal wala ki ngay bëgganteel ne ko man tu dois me faire confiance parce que lii ak lii ak lii ak lii yow yaa koy wane parce que nit tamit loo ko nëbbal yéen jigéen ne ko loo jigéen lu mu bëggul ma fas yam du ko xamal de lo bëgg mu nëbb loo bëgg mu feeñ du ko xam mais su fekkee da ngaa toog ne wóoluwuma moo tax du ko def alors que yow da ngaa war a wane waaw wala yow da ngaa war a wane ni yow tu as des raisons de croire en moi tu as des raisons de de de me faire confiance loolu yow yaa koy wane c'est une relation boo xamante ne à deux la man su góor gi su fekkee yow da nga toog ne man euh, est-ce que Laye Diop mii est-ce que nekkul di ma nax Ablaye Diop di def tous les efforts di la di la wane ni yow mii yow dong yaa fi nekk et tout alors que yow tu fais pas cet effort là affaire bi day nii day nul donc bu góor ñi bu góor ñi di de bu leen nee jigéen ñi rek ñoom ñooy gën a yëngu ci kii bi mais parce que dafa fekk ni des fois ku góor ki bu ngeen gisee jigéen boo xamante ni mi ngi rayante di bëgg kooku moo bëgg jigéen boobu dafa bëgg mais su fekkee góor ki moo bëgg seetlu la li ma la wax rek dañuy dem pour faire plaisir à leur alors que moom l'an, est-ce que ci man la wala et tout c'est à toi de montrer ça relation ku nekk day mën day bàyyi benn côté ku tu dafa am défaut ku nekk dafa am qualité mais da côté pour la relation orgueil et tout. si bëgg loolu ngeen di basé bu ko defee ngeen di def ko jigéen ki lu ko neex di ko ñàkkal fayda ñàkkal fayda ci nan ñàkkal fayda ci parce que da naan kii moo ma bëgg lu ma neex laay def parce que moo ma bëgg xam ne ku jigéen ki da leen bëgg rek jeex na moo tax ko wanee boo ko bëggee boo ko wan ndax boo ko wanee jeex na fa ngeen deewee foofu la de kii nee ma kii nee ma côté bi ndey Anta waxee lay waxee nee jigéen bu la ñoom feet yi dañ koy yenu jigéen bu la offrir euh, fleur mm-hmm. ah, en retour mi ngi xaar ci yow daw iPhone 5. ah waaw sama nami sama journaliste bu mag Omar Kane mais du jigéen du jigéen ñëpp nag ak jigéenam. wax na dëgg non mais tey yow tey bi nga xëyee la tey bi nga xëyee yow tey loo wax tey da nga nii daw da nga doon xaaree rouge blanc. kon cela veut dire que bi nga yow yaa ko doon xaar mais parce que non dinaa la man du fetaar man coolee bëri moy li wax dama weex dunq man du fétar mais tay day anté tay bima yow ndey day anté tay comme ni mo waxé ni nga ko waxé mais tay ki lim lo wax lim wax non tay lim wax non ne jigen bo xam te ne tey bu la jox goor manam goor bo xam te ne jox na la fleur mi nga yaangi xaar ci mom iPhone 5 wala iPhone deug la lan ngeen koy tontu kooku dit par wax na deug non du question ne dëgg la sax mais du jigen ñep parce que ñep yamul. li nane bu cër bu cër yëpp yamone ku ne dina am ñu gedd sen cër. ñi nit ñëpp yamuñu te ñëpp tamit bokkuñu nit ñuy dundee mais tamit nit nga offrir ko leen moom tamit en retour mu jox la leen loolu day fi day gën a neex rek. mais du question ba ah, ñi mën nañoo taawi mbir. suba bu ngeen xuloowee bu ngeen defee boo bu ngeen ko joxee fleur suba di ngeen xuloo mu jël fleur bi taawi ko mel ni fleur yi da cee def man tey bonjour lañ ma nuyoo bonjour kase. ku ko def bonjour kase lañ ma nuyoo tey. Ah. dama lay wax dama lay wax pour te dire pour te dire ah. pour te dire boy jigéen ñi comment comment comment elle vivent elle vivent elle vivent ça li mu Amar Kan wax deug la de amna ñu ci bari tay du ñep deug la parce que règle bo gis amna exception deug loolu dëgg. Mhm. Mhm. règle bo gis amna exception. donc mais amna ñu bari ño xamante tay buñ joxé montre ñay ngay xaar li nga ci wax iPhone wala ji woon wala leneen ak leneen. loolu moo dul normal loolu moo dul yoon. dinañ ko xaar loolu normal parce que dañ ne euh, relation à deux la. du yow kese di jël kanam di joxe. waaw d'accord léegi lu tax ngay xaar lay jar. Ah, iPhone ki wax loolu daa xool lu ko neex mu wax ko moom lu muy jógee si fleur dem ba si iPhone. góor sax warul xaar chaque jour jigéen di ko jox moom tamit war naa joxe. xoolu foofu mais boo xoolee en réalité yéen jigéen ñi tey ku ngeen ku ngeen defal tey benn suba bu ngeen jotee benn boobu ngeen ko defal di ngeen ko multiplier par 10 ne ko defal naa ko lu nekk ba bërki demoo njaay fii lii laa ko defal lii même bu fekkante li ngeen ko defal du dara 500 ngeen ci defan ah. 500 ku ko dégg dina defe ne 500 5000 la ne aussi ah, encore une fois jigéen ñi aussi lu mu la xamal benn suba jot wax moo tax ma ne la nit ku ne looy investir si nit da nga war a xool ci ki nga koy def da koo war a jar xool ci ki nga koy def ba pare mais góor ñi jar na ko déedéet ma kuréel tey boo nekkee kenn koo xam ne ni yow faale woo ko yëgoo ko tinoo ko bëggoo ko sa ñaar dërëm warul dem si moom parce que bëggoo ko ki nga bëgg rek ngay defal yéen ngi ni ñëw de ki nga bëgg ngay defal yow boo gisee ma tey jii ma yëkkati defal la lii ak lii ak lii parce que dama laa bëgg dama laa yëg looloo tax ma defal la ko mais góor ñi léegi yéen fii de dafa góor fi dara ñun yëgatuñu yéen yëgu leen ñun yëgatuñu nga ne yëgu leen kenn hmm. yéen jigéen ñi yéen ñan guy wala yéen daxaar yéen góor ñi ñun góor ñi pourtant yëg nañ góor góor ñëpp laay jóg wala ñoom yéen ñëpp bëggoo la da ngeen di bëgg keneen ci yow ma tey ñun ñoo fi toogal toogal góor ñi waxal nga ne ñun yëgatuñu loolu amul au contraire yéen yéen a yëgatul au contraire parce que yéen yéen gën a bëri yéen lu ngeen gën a bëri tey jii ah ngeen di gën a jàppee di jàppee góor li ma waxoon sàng rek nit góor dina ñëw bëgg bëgg bëgg Mariama trop topp ci Mariama Mariama di ko ñaaxal fayda du ko du ko du ko nemmeeku du ko def dara bu ko woowee sax balaa ma koy jël ça fait des des dina ko woo cinq appels manqués mosoo koo jël bu ko wootee naan ko. mais ñoo ci tane ji ñoo ci tane. góor ñi jigéen ci côté jigéen. moo tane tey jii bu bu yow bu fekkee ne yow ku jigéen ki yaa dem bëggi góor. Hmm. ku góor ki dina sagu façon bu ne te yow lim la ciy fekk nga wàcc fekk ko ci ku góor. sagu moom ci jigéen la ku góor ñi tamit day am ci góor ñi góor tamit. non non non non yow laa doon seet maam awa dafa ne ko seetu ma loon alors que mi ngi ko loon seet. mais jigéen dina dafa mais bu sago au moins dina bàyyi tuuti mais yéen do chaque jour da ngeen di dëkkal ci noppam moo ma bëgg bëggu ma ko moo ma topp topp ma ko. balaa ngeen a sago ñu xam ne da leen bëgg yéen ni ko defee yéen noonu ngeen ñuy def moom moo bëgg a lu tax ma lu tax ma ne la sànq yéenay xaar yéen yéen gën a xaar Saint-Valentin yéen a koy gën a yàqamti parce que à chaque fois yéen toog ah moom de la ma war a offrir maa ngi koy xaar waaye yow doo xalaat mukk la nga ko war a man je me tue un mois yoo xamante ni maa ngi toog di toj sama xutu xata gi di xalaat loo xamante ni. day fekk moom li la war a offrir xalaat na ko bu yàgg di xalaat ay poème di xalaat ay poème yu neex yoo xam ne nii dana ko am way bu neex way bu neex bu ma jël ca benn extrait denc way bu neex bu ma jël ca benn extrait denc maa ngi nii chaque jour ma dugal poème te taxul kenn tontu tontu am ah, amaguma réponse wax ji nag xam na borom du ma ci eggale yow defaral sa chaque maa ngi bind ay poème xool poème bu gën a neex bay dugal ma ba tey kenn du si tontu petit merci sax du ma ko am mais d'une fois xale jigéen yi parfois dañ naan ñoom fel sagu yi ci góor yi mais ñoom ñoo dàq sagu ñëpp dinañ la daw la mois loolu moo leen neex loolu moo leen neex parce que waa Dieng may topp Makoro Diagne le célèbre revue de presse ma may topp loolu ndam la si ñoom. mais luñ la luñ la dawloo dawloo tamit dañuy bàyyi mais góor boo dawee ci ginnaaw du mës a bàyyi. ah non non de de góor ñi ak yenn góor ñi. góor moo lay ëpp xolu yërmande. non non góor. 88 628 10 95 88 628 10 80 temps bi li ci des euh, xaw nañoo xoj tuuti mais ñu aussi ñu dellusiwaat tuuti encore une fois ñuy waxtaanee di leen fàttali ne yéen seen émission ëttu ndaw ñi 98 point 2 ñuy waxtaanee tey li nga xam te ni moom moo di Saint-Valentin démb ak tey euh, fa co Saint-Valentin cosaanoo muy ca tubaab ya ñëw fii ak tey lu tax euh, ndaw ñi jamono ñi ñu yenu Saint-Valentin ci diggante góor ñi moo ci gën a yenu Saint-Valentin defe naa li fi jot a dégg ak fi jot a jukk déggandoo nañ ko

relation yi dina continuer wala du continuer. ah am na relation yoo xamante dinañ continuer bien sûr parce que base ba moo am moo moo moo dëgër fondement ba moo fa moo fa nekk donc relation yooyu ñooñu même bu dul Saint-Valentin sax chaque jour dañuy dañuy wër di def euh, faire plaisir à leur à leur conjoint wala conjointe donc ñooñu seen relation dina dina dina wéy relation yi dul wéy rek mooy relation Saint-Valentin yi. relation Saint-Valentin comme ni ko koy tuddee relation entre guillemets Saint-Valentin. Mhm. yooyu relation yooyu waaw relation yooyu bu ñu demee un mois. Euh, ñu kii ñu mu tas parce que dina ko mere parce que dina ko def lii dina ko man xam nga c'est des fois xam ma jigéen dañuy yor ay caprice yoo xamante ne des fois tu comprends pas dañuy yor seen caprice yoo xamante ni waaw donc deug la caprice man jigen buy def ay caprice dang may neex. may day fek mu nek caprice bu intelligent dafay damay fekk damay fekk mu nek caprice bo xamanteni yow au moins yow ku góor ki da ngay am da ngay am euh, mbëgte da ngay am sensation dem diko nax ne ko euh, bay sa yi ngay def affaire yooyu. moy caprice objectif. objectif yi nga xamanteni tek tek na ci dara waaw. am bëgg na dara moo tax peut-être muy def ces caprices là mais def caprice pour def caprice yeewoo sa kër sa sa bàyyi ne la waaw yow sa liggéeyoo fi xaw ma nangam sàngam wala saa wax la dala nga nga meree ko fa ñëw

xalé jigen yi pourquoi tay ñom buñu méré gauche rek ñoo bëkk sipi droite buñu méré droite ñoo bëkk sipi droite jigen ñom day anta la bu xulo amé rek ci yeen la mm-hmm. ya parfois nga xulo ak monsieur Thiam parfois nga ñew fi nga xulo monsieur Thiam ñew na ma leg leg leg leg li mais tay quel est le problème yow la wala kan non exemple la joxe exemple la joxe exemple la joxe eh, évidemment parce que monsieur Thiam ñu koy nuyu de passage di ko wax ne tey ñun ñoo fi teewee madame Thiam tay ci émission bi mais tay ndé nday Anta jël bu leen passante micro bi nday Anta wala tay wala madame Thiam tay mhm. yow ci xamanteni xaw xaw ngaa raw gaay tuuti expérience bu ci côté jigen ni ci côté jigen ni bac plus cinq la seen caprice yooyu ci lan lay tënku mais caprice yi ci la bokk mhm. ci la bokk di bari ci feem yi la rek xëy na ngeen mer nii rek ci feem yi rek ci feem yi la yéen yéen a yéen yéen yéen a ñu war a wàcce ak caprice bu ñu mënti àndi yéen yéen a war a xam a xam fu ngeen jaar ba wàccee mi nit boo ko bëggee lépp lu mu mënti bu nekkoon ci néeg bi di xaroog lu ne mu dugg ci bëgg ko def ak waaye war nga xam foo koy jaar ba àndiwaat ko mhm. moom bu la bëggee day wàcc mhm. loolu moom ci la bokk jigéen ak caprice ñoo ànd mais am na góor ñoo xam ne moom ñoo ñoo ñoo gën a bëri caprice jigéen caprice yooyu dafa am ko ne jigéen jigéen boo gis bu jékki-jékki rek changé que da lay a bàyyi mais parce que ba gis na benn waay joo xamante ni moom moo ko moo ko gën a léegi nag ay prétexte yooyu yëpp ay prétexte loolu sa loolu ça dépend ci li nga koy wax ñoo koy def jàmm fekk si mais tey imagine ku góor ki tey bu kenn amul caprice dañ naan ah dafa gis keneen automatiquement esprit bi ñëw na moo tax ma ne la yéen seen xel moo ñaaw ba doo leen am confiance ci ku jigéen ki man ñemewu maa xëy benn jour da ne damaa mer ñemewu ma ko def ko xool parce que xam nga boo ko defee boo ko defee elle s'en fout dala ah, ah waaw moom moo mer bàyyi ko foofu alors que moom bu ñëwee mer waaw moom bu ñëwee mer man damay ñëw woote lan moo xew lan moo def lii lan moo sàngam sàngam laajte laajte def samay investigation wàccee la comme ni ko comme ni ko madame madame Thiam waxee mais loolu du si fekk ku jigéen ki loolu du ko fekk ku jigéen ki parce que moom parce que moom dafay jàpp ne relation bi ku góor ki moom moo ma doxaan si wala moom moo bëgg. neexal neexal bi si ñoom la. si ñoom la war a si war a. question bi ñoom ñaar question bi ñoom ñaar ñoo koy tontu pourquoi tey caprice yéen tey jigéen bu ngeen ji fu ngeen caprice yéen ku góor ki war a wàcc ñëw neexal alors que bu ku góor ki meree ki meree wala di caprice rek ngeen di dafa gis keneen ne pourquoi esprit jalousie bu amee rek côté ku jigéen ki lay jugee day ànd. waaw man dama dama jàpp ne comme yéen par exemple da ngeen di ñëw wàcc mer indaale seen mer te teewul jigéen ñi dañ leen di defar ba ba ngeen wàcc mer ci ñaari côté yëpp ku góor day mer ku jigéen day mer mais nit bu mere yow yaa koy comprendre indiwaat ko waxtaan ko muy ku ci côté góor ki muy ci côté ku jigéen ki rek. moom mi ngay nelaw ci si studio bi eggaleel demal demal demal. man de li ma siy wax rek mooy euh, caprice pour man man caprice lu neex la. góor dafa war a capricieux jigéen tamit noonu la war a mel loolu dara dàqu ko nga toog capricieux nga toog di def sa yenn affaires yi mais dara nekku <laughs> comme vous exagérez non du question de exagérer sax loolu daf euh, genre benn euh, mbégte la dafa neex nga xam nga toog nga ne nga ne man de sama copine bi dafa capricieux day lii wala day lii da ngay fier si moom parce que da nga naan kii li mu bëgg moo tax mooy def lii di def góor ñoo xam ne bëgguñu jigéen benn affaire am na jigéen dafa bëgg ku koy neexal tant yaa ngi koy neexal day gën a fonk relation ndax danaan kii bëgg na ma ndax su ma meree daf may am na góor ñoo xam ne ak ñoo matadi moo tax ngeen tàmm moo tax ngeen neex yi non question de borom làmmiñ lu neex sax comme duñ koy faral di waxee rek dañ naan xuloo neex na waaye jiboo moo ko daak dafa ya, neex yow nga xuloo nit ki nii nga ñëw toog mu neexal la wàccee la ba pare ba akolaat ko loolu dara daa ko ko ndeysaan plateau bi tey plateau bi tey dafa émo dafa émotionnel quoi tey plateau bi sama sama xool dafa mais dafa am góor ñoo xam ne dañoo rëy dañoo am góor ñoo xam ne dañoo rëy yow boo meree duñu xam sax yow ni yow mer nga duñu la sax li jig fi nga toog foofu lañ lay toog di la xool te dañoo war a ñëw wàccee la mhm. waxtaan ak yow mais ñoom duñ ko def mhm. toog di ko di la xool ñi da nga war a galant galant comme man non Babacar Fall góor day galaadu la léegi mm. gis nga ci loolu ngay wane sa jabar day sa jabar ak gel ak ñëpp dañuy xam ne ni kii dafa am sentiment ci man mm-hmm. boo xoolee merci doo xool kanamam da boo xoolee kanamam rek war nga xam ne kii dafa mer mm-hmm. mais am na ñoo xam ne yow ñu xool la nga mer ak ñàkk mer yëpp la ñu yemale et s'en te ñu toog nii di la xool seen yoo nekku ci. loolu loolu mais loolu ci jigéen ñi la ëppee nag benn bi lañ koy def dañ naan comme que da nga mer tey laa lay wax nii man maa la gën a mer wala di la wan ne man maay góor rek moomu fas sa kanam loolu relation fan lay mujjee du mujj eh, fenn xam nga booy fas sa kanam day fekk nga fas sa kanam ci loo xam ne lu ko jar mais parfois yow nit dina mer jóge fenn mer da nga koy laaj te ba pare nit du toog ba mu nekk war mu fas kanamam merci dañu am fasee kanamam war mu mer mais nit ku ne nit ku ne parfois da ngay jékki-jékki rek nga am lu la métti mu ñëw mu ñëw loo xam ne dindoon nga ko mu ñëwaat Ablaye Diop du ci yow non loolu en général jigéen ñi la góor ku góor kay mer ko jigéen ci ñëw këj ko mais oh, man li ma bëgg a xam mooy pourquoi tey ku jigéen fu mu meree ku góor ki moo war a wàcc ñëw di neexal di neexal di jënd ay affaire góor ak affaire yéen yéen ñu war a neexal mais pourquoi bi bu ñu meree yéen du ngeen di neexal da ngeen di yéen parfois dañ leen di neexal ba sonn ngeen dëgër mais automatiquement da ngeen di da ngeen di xalaat ne dañoo am keneen loolu ah, loolu loolu yow exemple laa lay jox tey jii ngay génn ak kenn ngay génn ak kenn mu leer hmm. na la leer la ne bëgg hmm. boo ko neexalu boo ko wàcceewu kan koy def maa ko war a neexal te dama koy neexal ba mu neex kon lan moo tax nga naan jigéen ñi dañoo bëgg ku leen di neexal mais pourquoi ku góor ki bu da koy neexal ak jigéenam kon déggoo ma ni la xuloo neex na waaye ji booba dara dàq ko waa tribune bi ñu may reetaan de <laughs> ni ngay meree mu lay wàccee yow tamit boo meree noonu nga ko bu meree moom noonu nga ko war a wàcceewee mais yéen daal yéen a war a yéen di defal yow doo ma gën a gore si dara bi ngeen di yor nag dafa am keneen non non non loolu fiir la nit ku ne koo bëgg ku ne da nga koy fiire koo bëgg dèjà koo bëgg ku ne ah mu toog benn côté mer yow bu fekkee ni nit nga da ngay xalaat nga ne kii kat bu meree wala man bu ma koy laal muy daw ak muy def lii am na lu ma ko def muy raas mm-hmm. waa am na lu ma ko def loolu moo tax muy mer kon ça veut dire que yow yaa war a def tout ba wàccee ko xam ne muy mer nga daaneel ko rek lekkoon kon temps bi li ci des bëriwul dama lay bàyyi nga waxaale nga tàggatoo nga joxaale xam naa ne amoo expérience mais eh, nga joxaale quelques astuces quelque as ma xam naa xam naa lu amoo expérience nga joxaale quelque astuce yooyu jigéen ñi lay déglu. ma kuro balaa may tàggoo xam nga fa laay damay dellu fi nga waxoon nga ni Saint-Valentin 14 février la waaye après octobre na kii. novembre lañ jëm novembre lañ jëm ngeen te xaw ma lan la. évidemment foofu ah du ma si d'accord si parce que man jàpp naa ne yow nit ki soo ko bëggee nga mu leer la ne bëggante ngeen doo bàyyi ba 14 février ngeen ne da di def li ngeen di def. li ngeen li ngeen di def da ngeen koy def avant 14 février te loo xam ne defoo ko 14 defoo ko yeneen jours yi ba 14 février nga ñëw nga ne danga nga koy def amul benn sens du 14 février la ñuy jël naan lépp moom la def loo sañul woon def doo bàyyi ba jour ba nga koy def kon boo nee tey jii 14 def dafa bëri bayre rek dafa bëri bayre kay te nit ñi ñoo ko fesal dëgg la sax fes la ñu gën koo fesal dafa bëri bayre kese mais loo sañul woon def avant ñëw ba jour ba di ko def amul benn sens mais tey fi may waxee loolu amul sens fi may waxee mooy tey tey ku ci nekk tey dalay leer de tey lal yi moom dina féex mook 31 mais tey da ñu ci bëri tey tey soo tey soo génnoon seen kër tey sa papa du laajte sa yaay du laajte day xam ne da ngaa dem feetu ji moo tax moo tax en moo tax maanaam tey kat nañ moytu 14 février yi foofu laay waxee tey par rapport ak tey fokkante ne beneen jour ordinaire la boo génnee au nañ dinañ la laaj foo jëm. kaay ma wax la bu dee 14 février boo génnee ñu ne la. foo jëm foo ah bu dee 14 février nga génn nga ni dañu xam ne da nga feetu ji waaw moo nga génn ñu am expérience dëkk duñ génn jour fête merci avant fête wala lendemain fête kese mais jour fête loo si def dañ naan yow fête bi moo tax nga def lii. kon ay expert laa fi yor ah man xaw ma expert ak loolu ça rien à voir expert. dëgg la expert en amourologie. suba ay suba la 15 la suba. xoolal journée mondiale yi amul journée mondiale suba le 15 o bu amul journée mondiale yi 14 février bu ko nit ñi defee benn jour. yow nga jël yàgg sa copain nga def ko 15 yow bul xool li nga xam ne nga def ko 365 jours maam bëggeel du benn jour yow jéem a créé loo xam ne pour yéen ñaar la. ah kon man loolu loolu man man lu tax man ma nekk ab ngaaka xaw ma si yooyu ndey Anta. day Anta jugal man man vraiment am ngaa kalaa xaw ma si loolu madame Thiam nga jaaraale fa. waaw dinaan nit ñi nañu bëggal suñu nu ñuy. waaw ak ak monsieur ñu ngi koy nuyu de passage. waaw man tey moom xam naa dana guddee man maa ko fi kepp. tey moom maa ko moom sama Saint-Valentin moom train moom oh, ko ndax nekku fi. dommage mais ma naan nit ñi rek nañu fonk suñu relation yi nañu fonk ñu ñuy àndal parce que nit amoo kenn ku dul ki nga bëgg di ko bëggal bës bu yàlla sàkk dafa neex. benn bés comme 14 février bii nga jënd benn cadeau jox ko ko bien vrai que ni cadeau chaque jour bu la neexee chaque jour nga joxe ko mais dafa am bés boo xam ne dafa spécial muy cinq jour wu 14 février da nga war a firndeel sa mbëggeel ci nit ki danañu moytu lu bëri comme ni nga ko waxee sànq rek euh, tàkku di ko bañ euh, dëgg la ñun xale jigéen ñun jigéen yi amuñu xel. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy euh, ci jour bi lañ la naan war ma sa mbëggeel yow boo nekkee koo xam ne bëgg nga nit ki ah ba yegg ak moom fenn fi. dang koy won sa mbëggeel defee ko ci ñoo xam ne neexul yàlla nañu moytu lu bari ndax ñun ay jigéen lañ te góori tamit ñu ñuy comprendre xam ne ñun yàlla moo ñu def ni ñu mel mais bëgg nañu bëgg nañ leen ba mu jeex hmm. di baalu ñëpp àq nag hmm, ñu ngi baal ñëpp àq di wax 14 février benn jour la tamit ci 365 yi kon defe naa ne benn jour boobu nga ànd ki nga bëgg nga jëndal ko cadeau offrir ko ko nga jox ko ko loolu dara ci même bu fekkee fleur la boo xam ne cinquante franc lay jar jox ko ko rek mu firndeel ne yow mi au moins bëgg nga ko léegi ñuy wax ci jigéen ñi rek ñu def attention tamit ne Saint-Valentin yamul tey jii rek du benn bés bi tey ji lay yam parce que kuy dund ñaan nga yàlla at yëpp nga fekkee ko te at yëpp tamit Saint-Valentin am na ci biir di ñaax jigéen ñi rek ñu moytu bu baax sant ak gërëm ñenn leen sama chroniqueuse yu jigéen yi tey nag ay experts yu jigéen laa fi yor nag laay expert en amourologie man xaw ma expert wala wala ñoom dañuy s'inventer ji di ñu bammandaa xaw ma laay kàddu gaango jërëjëf Makoro jaañ maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ay taskatu xibaar rek tey ñu sekkoon amoon bégteeg bànneex sekk ak ñoom partagé li nga xamante ni moo di émission ëttu ndaw ji di leen di jaajëfal bu baax a baax di xam ne rek lépp lu ñu fi doon waxtaanee rek yaakaar naa pour defar rek moo ñu taxoon a taxoon a jóg nag ñuy jaajëfal képp ku ñu doon déglu rek di wax ak jigéen ñi rek ak góor ñi nañu nañu nañu nañu jàngaat lan mooy relation nañu xam lan mooy relation dañu bañ a dugg ci relation rek juste pour am copin wala juste pour am copine chose de de de de sérieuse loo xamante ni dafa war a dafa war a nekk lu dëggu ndax mbëggeel moo demee li ni mel donc nañu nañu nañu bu ñuy bu ñuy jaawale comme ni ko Mariama waxee woon bu ñuy jaawale Nobel ak ak ak mbëggeel waaw nañuy wóoluwante nañuy waxtaan sujet d'intérêt yi centre d'intérêt yi ñu mën a waxtaane yoo xamante ni dina mën a neexal euh, relation dina mën a tax nit nit gën a mën a xamante bëri na fi nga ngeen utiliser seen xel yi ñu utiliser suñu xel yi xam nga pour mën a pour mën a relation yi mën a dem parce que relation yi tey jii dafa jot Sénégal ñu gis ay ay relation yoo xamante ni day aboutir mariage bu sincère bu dëgër mariage bu neex mais mu bañ a nekk loo xamante ni tey jii ndaw ñi dañuy dañuy euh, ndaw ñi dañuy xeeb seen morom et tout man juste ay affaire de génération la ba yooyu mosuma koo gëm ñun ay jigéen lañ te dañuy ñaan yàlla euh, bés jot ñu am borom kër boo xam ne mun na ñoo yor ñu ñu bokkal génération am na ñoo xam ne dañ mënuñ ñoo yor. non xam nga règle boo gis loolu am na gaa mais jigéen bu ne da nga ñaan yàlla sëy koo xam ne euh, moo la moo moo la mag ëpp la expérience mais koo xam ne yow yéen bokk yéen a tolloo génération da nga naan kii du ma mënal dara amul dara lu ma mën a apporter te ñun dañuy ñaan yàlla sëy tambaag ñuy xoj bi nee na la santé avant tout waaye man dama naan l'amour avant tout laay continuer nga tàggatoo ba lay jaajëfal baax kon maa ngi tàggatoo nag nga xam ne ñu ngi doon teewlu Omar Kane dégg naa parce que li nga wax dëgg la maa la ci maa la ciy bëgg maa ngi xaar sa message pour demain nag maa la koy lancé di jaajëfal ñëpp daal ma kura kàddu gaa ngi doon mi ngi noonu ñoo ko déggandoo nag 17h30 euh, mu nekk nag ca pandaw émission bi nag euh, di leen wax ne nag tey 12 14 février nag ñu ngi doon waxtaan li nga xam te ni moom moo di seen émission euh, ci biir émission ëttu ndaw ñu ngi doon waxtaanee li nga xam te moom moo di li nga xam ni moom moo di Saint-Valentin ñi nga xam te ni nag tey nag di leen di jaajëfal ñoom ñëpp ñi nga xam te ni jot nañoo woote ak ñi nga xam te ni woote nag waaye ñu ngi doon message gis nañ leen ku ci mel ni Adama Laye ñaa sama boobu nag daf maa ngi koy nuyu de passage ko jaajëfal